لي وما بطن مني منورا بفضل للعتن باركت لي
salaatu wasalaam ala rasulillah mbokki déglukat bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen bàllu àq fas yéene indil leen leen toxale woon ren gi ci màggalu Touba màggal gi nag ngeen koy xamee at mu jot mu di am ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dëpp woon ren ak alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août màggalu ren gi ñu ngi ko xamee moo di ñaareelu màggal bu Cheikh Saliou Mbacké xalifa général kullu murid ginnaaw bu ñu dégloo Serigne Omar Diouf mu ubbil nu waxtaan wi ci njëlbeen nag da leen di bàyyi yeeg Serigne Moustapha Saliou Mbacké mun leen loo xam ne ay waxtaan yu am solo la te nag mën koo tudde sax loo xam ne mbetteel la di mbetteelu jàmm ndax ren ci màggal gi am na waxtaan ñu fa toxale waxtaan wu ci nekk màcc ci jëm ci fi njëkkoon nekk xalifa xaadimu rasul ci noonu nag ñi la jëleloon màggal ji moo di seen xarit Clédor Diagne Samba Nguer Abdoulaye Lam Abdel Kader Joxaane ak Baba Kunta ak équipe technique bu service extérieur te Mansour Seck jiite woon ko ginnaaw loolu am na waxtaan woo xam ne seq nañ ko ak sëñ Noonu Jaxate di président communauté rurale ba ak sëriñ Aliou Ndaw bi jiite daara Kamil gannaaw loolu tamit gan yi fa ñëwoon teewal fa yeneen tarixa yi nekk ci réew mi def na ñoom ak ñoom tamit ay waxtaan ba tey ci biir Touba ak bu demee ni Daaru Salaam Daaru Minam Daaru Xuddoos Daaru Rahman dem nañ fa def fa ay waxtaan am na waxtaan boo xam ne tamit ñu ngi ko jagleel borom bés bi mu di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ki ñi ko defal moo di Muxtaar Seck mi ngeen xam di ko dégg fi fajar bu nekk ci rajo bi kon nag si njëlbeen ñu leen di bàyyi ak sëñ Moustapha Saliou Mbacké wa jaa alxaqu li yuxiqa alxaq wa zahaqa albatilu li yubtila albatil inna albatila kaana zahuqa walaw kariha almujrimun كان هذا بعد جهاد مرير وكفاح أمر وأدهى انتهى في آخر المطاف إلى الانتصار على العدو والعفو عنه قهرنا به الأعداء طرا سلمت من الأعداء طرا عفوت عن الأعداء طرا فكان القهر بإذن الله وكانت السلامة بعون الله وكان العفو خلقا عظيما لقد بدأ هذا الأمر في عام 1301 عندما تشمر عبد الله وخديم رسوله أحمد بن محمد بن حبيب الله وتطلع وتشوق إلى جمع ما تفرق على أصفياء الله من أولياء وأقطاب ليجعلها أكلة طيبة سائغة للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون dëgg dal di taxaw te dara taxawalu ko lu dul li mu nekk di dëgg fen dal di màbb te dara màbb ko lu dul li mu nekk di aw fen bu mu doon dëgg bi nga xamee ni sëriñ tuuba dog na ci nekk abdullahi wa xadimu rasuli mu doon fen bi nga xamee ne noon yi wax nañu ne loolu du fi am ñu dem ba yàgg ndam am njëggal topp te bi loolu daataa am ñu musal ko ci mboolem la nga xam ne moom la noon ya doon fexe menn pexe bañ a jëy ñu may ko ndam la mu bëggoon moom lépp am la naqari woon noonu ya lépp ñu doon bañ mu am ñu di ca teg seen bët te mënuñu koo faj loola may ko mu jekku mënoon a jekkili waaye deful loola dafa jéggli mucc gi mu mucc ndimbalul yàlla la ndam li mu am ndimbalul yàlla la waaye jéggile gi moom jikko ju rafet la mbir mi mu ngi amee ci atum junni ak ñetti téeméer ak benn bi nga xamee ne sëriñ Touba dogg na ci ne fokk may yi nga xam ne yàlla tasaare woon na ko ci gaayam yu baax yi fas na yéene dajale yépp ci loxoom tasaare ko moom ci bindeef yi ba ñëpp jariñu ci te du ca xajjale kii ak kaa xanaa koo xam ne rek jëmul ci yàlla mu dal di teel a xam le itam ni moom susul tariqa dafa ratt mboolem li amoon njariñ ci ngir yi ak ci may yi dajale ko ndax yombalal ko ñi nga xam ne dañuy jëm ci yàlla mu dal di wax ni fa kullu wirdin yuridu almurida li xadrati illahi walan yaxiida sawaan intama ila aljilaani أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب وحنا لب لو خمني ku jëm ci yàlla mën na caa mooy ba mu àggale ko ci yàlla rek loola lu mu mën a doon baax na moo xam li nga xam ne moom la ak cheikh abdul qadir jilaani andi wala muy li nga xam ne moom la ak cheikh ahmad tijaani yi andi wala keneen ku dul ñoom ñaar andi ko mas nañu ko laaj ay laaj ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci atum tubaab ñu laaj ko ne ko ma asaasu tariqati almuridiya wa ma hadafuha wa ma maxalluha ومن هم أتباعها وأجاب الشيخ أساس الطريقة المريدية الإيمان والإسلام والإحسان وهدفها وجه الله تعالى ومحلها بلاد المسلمين جميعا وأتباعها الذين يريدون وجه الله تعالى حيث كانوا mu xam le ne li nga xam ne mooy fondement bu murit bi ñu ko ko laajee moo di al imaanu wal islaamu wal ixsaan ñu ne ko lan moo ko tax a jóg mu ne xanaa jëm ci yàlla ñu laaj ko fan la yoon wi dëkk mu ne xanaa réew yi jullit yëpp ñu ne ko ñan la ñuy jàppe ne ñooy ñi topp yoon woowu mu ne ñi nga xam ne dañoo jóg jëm ci yàlla ak fu ñu mën a nekk loolu it sëriñ Touba yëmul rekk ci tontu ko daf ko jëmmal leeral ko yar ci nit ñi joxi googu nga xam ne moom la joxi mboolem li nga xam ne fu ne la fa gën na mu ko tibbi yëmalewu ko rekk ci wax yooyu daf ko jëfe yare ci wone ko am na foo xam ne sëriñ Touba dafa tënk ab murit muy ku jëm ci yàlla rekk nan la war a mel wax ne sifaatu saadiqi almuridi bi ixtisaaru arbaatun nadamtuha xawfa igtiraar alsidqu fi mahabati alcheikh abad summa imtisaalu amrihi xaysu warad وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رووا ومعه طلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات فانظره في لطائف الشعران تجده كالياقوت والمرجان Tuubaa wax ne murid sadiq fokk yéenti jikko yi nekk ci moom dafay bëgg sëriñam dafay topp ndigalam te du du dingat ci xolam lu mu tuuti tuuti tey doomu bëgg ku bañ ndax dafay rafet njort mu wax ne loolu yëpp moom du caggee ni moo ko wax wala moo ko sos boo demee ci lataifu shaaraani nga xam ne al imam shaaraani mu mag mi ñëpp xam di nitu yàlla moo ko def moo tënk meloy murit foofu sëriñ Tuubaa dellu wax ni wa qaala cheikhuna al imaamu al jiili la zaala za ridan wa za tabjiili إن التصوف على بنيان أركان مبناه على ثمان سخى الخليل ورضا إسحاق وصبر أيوب الذي قد فاق إشارة لزكرياء كذا غربة يحيى صوف موسى فغزا سياحة ابن مريم وفقره سيدنا المحمود نعم البر mu wax ne Cheikh Abdul Qadir Jilani moom wax na ne fi ñuy jaar ba àgg fa yàlla moom juróom-ñetti xàll la fokk da ngay amee tabet Seydina Ibrahim amee neex deratub Ishaq am muñub Ayub am laabiirug Zakariya am tumurankeg Yaxya amee nooyub Muusa amee wëreelub Sayduna Isa amee it ñàkkug Sayduna Muhammad mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ci beneen béréb ne qad axbarat Aïchatun bintul Atiq رضي عنه الله ما كان رفيق أن عيال المصطفى الهادي البشير لم يشبعوا يومين من خبز الشعير سيدنا محمد mi nga xam ne lu yàlla bind moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne masi fëta fàttaliku moom ak waa këram mi sësale ñaari fan yoo xam ne dañuy añ reer Sëriñ Tuubaa dellu wax ne wa qaala cheikhuna radi tijaani laa zaala bayna alqawmi kalmarjaani in altasawufa huwa imtisaalu amri alladi daama lahu aljalaalu maca ijtinaabi kulli maa canhu naha fi zaahirin wa baatinin ahlu nnuha min xaytu yardaa huwa جل وعلا لا حيث ترضى أنت فافهم واعقلا Sëriñ Tuubaa wax ni ak Cheikh Ahmed Tijaani yi wax na ni fi ñuy jaar ba àgg fa yàlla moom nee na lu gàtt la moo di lépp loo xam ne yàlla digle na ko rek nga nekk ci lépp loo xam ne yàlla tere na ko it ci biir ak ci biti nga bàyyi ko te defe ko na ma ko bëggee moom sunu borom waaye waxul nga defe ko ni nga ko bëggee yow Sëriñ Tuubaa dellu wax ni fa saadiqul muriidi man yanqalibu bi xukmi waqtihi ولا يرتقب أمامه وقتا فإن ذاك يمنع من إصلاح ما هناك فلتنظروا في جنة المريد لشيخنا الكنتي ذي التمجيد Sëriñ Tuubaa wax ne murid sadiq dëgg ku jëm ci yàlla dëgg te bëgg a àgg dafay doon koo xam ne waxtoom wi mu nekk rek lay lay lay faale du wax mukk ne naa nit ba ci kanam ndax su waxee ne naa nit ba ci kanam li nekk ci kanamam fi saa si moom sànku na ñàkk na ko mu wax ne loolu it mi ngi ko tibbe ci téere bu ñuy wax junnatul murid te sidil muxtaar alkunti yi def ko sëriñ tuba dellu wax ne وللحجاب ستة من الأصول وقطعها حق لمن رام الوصول قل كثرة الأكل وكثرة الشراب ثم ملاقاة البرايا باستحاب وكثرة الكلام كثرة المنام وغفلة عن ذكر ربنا السلام فانظره في جواهر المعاني لشيخنا المعظم التجاني sëriñ Tuubaa wax ne dem googu nga xam ne am murit daf koy namm jëm ci sunu borom nag am na juróom benn yëf yoo xam ne daf koy tey àgg ba tax na su bëggee àgg fokk kiiraay yooyu daf koy daf koy dog moo xam ne bi ci jëkk mooy baril ak lekk bi ci topp mooy barilub naan bi ci topp mooy bari jaxasoo bi ci topp mooy bari wax bi ci topp mooy bari nelaw bi ci topp mooy saggan ba am benn diggante boo xam ne nekkuloo di ko tudd sunu borom mu wax ne loolu it ki ko wax moo di al cheikh ahmad tijani boo ci bëggee xam lu leer nga seeti téere bu ñuy wax jawahirul maani sëriñ tubaa dellu wax ne وصح أن الأولياء الواصلين ما وصلوا إلى إله العالمين بكثرة الأعمال كالصلاة وحج بيت الله والزكاة بل وصلوا إليه بالرعاية لجملة الآداب بالعناية وجملة الآداب عند القوم انحصرت في خمسة يا قوم حف لحرمة علو همتي وحسن خدمة وشكر نعمتي خامسها النفوذ للعزيمة فمن يراعها ينال الغنيمة ذكر هذا كله الطرائف لشيخنا الكنتي نعم العارف Sëriñ Tuubaa wax ne nit yàlla yëpp maase nañu daje wax ne la leen taxa am lañu am ak àgg gañu àgg fa yàlla bari ay julli ak i aj ak i natt azaka mayu leen ko li ñu gis ne moo leen ko may moo di yar ak teggin mu wax ne nag teggin yooyu wax nañu ne juróom la moo di sàmm ormay sunu borom ak pëstif bu kawet ak liggéey bu rafet ak cant gu wóor ak dogu goo xam ne nag kenn du la mën a dëpp te fekk fi nga jëmit ci yàlla rek la mu wax ne yii yëpp soo demee ci téere bu ñuy wax ab taraif te Sidi Moxtar Alkunti yi def ko da nga ko ci gis kon su fekkee ne Sëriñ Tuubaa te tàmbali ba rek ci at moomu nga xam ne ci la sose mbiram moomu ci la daldi waxe ci masalikul jinaan loolu mu wax ci at mi nga xam ne mel na at la fi nekkaat ñibbi si Tuubaa yi ñu laaj ko laajteem yooyu mu tontu ci li mu tontu diggante boobu it mu jëmmal ci li nga xam ne moo di wax gi mu wax ne li sunu borom tasaare woon ci nitam yi muy may ay may dog na ci yooye yëpp mu dajale ko ratt ko na ci yooye yëpp mu dajale ko ratt ko bu doon meew nga xam ne dafay da koy dafay génne niw wa faas ko defar ko ba mu doon lu am njëriñ mu tasaare ko ci jaam yi nga xam ne dañoo namm jëm ci yàlla amuñu gën bëgg ci àddina ak alaxira guddul àgg fi yàlla kon lu wér la ne Sëriñ Tuuba dafa ñëw ngir jariñe waaye dikkul ngir lore dafa dikk ngir dajale waaye dikkul ngir taqale loolu itam terewul nag Serigne Touba am may goo xam ne ni ñëpp amee may nag mu amee ni mayu boppam goo xam ne dafa fob yooyee nga xam ne moo jëkkoon fob nag li nga xam ne moom it moom la ko sunu borom may mu boole ko taf ko ci ba tax na lii nga xam ne tudd na ko fii yëpp wax ne gaañu baax ñii di nit yàlla di borom yi may yu rëy kenn ku ci nekk wax nga li nga xam ne moom nga tënk wax ne li nga am ci yàlla lépp loolu moo la ko may Sëriñ Tuubaa it wax na loo xam ne moom it waxi boppam la ndax dafa wax ni amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana almuridu yuksiru qad qultu dhalika bila israari wala ubali bizawi linkaari فكل من سألني فلي جواب قبل ولا تجادلوا أهل الكتاب Sëriñ Tuubaa wax ne yi ma tudd yëpp ay yoon la yoo xam ne wucc na dama caa jaar ay mbir la yoo xam ne sóobu naa ci nattu ko gis ya ca di njariñ tibb njariñ ya te fa tabarakallahu muy njariñ yu bari di àggale it ca yàlla waaye li nga xam ne seetlu naa ko nattu ko xuus ca génn ca lamb ko te gis ne mboolem yi nga xam ne ñooy àggale ca yàlla bari nañu lool waaye lenn gënu ko ca gaaw te manees naa wax ne moo ca gën a màgg moo di zikrullahi tabaraka wa taala fàttaliku yàlla ak tudd yàlla mu wax ne loolu ma wax itam waxuma ko ci suuf sans baat ca kaw te it nag faaliwuma kenn koo xam ne danga may weddi ci loolu bu fekkee ne nag weddi woo xanaa danga ma laaj ne ma lii nga wax foo ko teg ma di ko xamal ne am naa tontu moo di na seeti li jëkk wala tujaadilu ahlal kitaabi ci alquran te loola moo di li sunu borom wax ne wala zikrullahi akbar wallahu yalamu ma tasnaun loola moo di sunu borom dafa wax ci alquran ne yi baax bari na lool yi am njariñ it bari nañu lool waaye giñ naa ne li ci gën a màgg moo di zikrullahi tabaraka wa taala kon mbir mii nga xam ne mooy mbirum Serigne Touba nii rek la demee njariñ la aw yiw la xéewal la ak texe la ak àgg la mbir mii moo di mbir mi nga xam ne waxtu wu nekk saa yoo xamee ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dikk na ñu di ci fàttaliku Serigne Touba ak mayam yooyu di ko ci sant le yàlla màggalug ren gii nag fas nañ leen ci yéene betteeg ay waxtaan yoo xam ne def nañu ko def nañ ci waxtaan woo xam ne ñi ngi ko def ci ak cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo jëkk a nekk xalifatu cheikh El Khadim waxtaan woowu ku ñuy wax sëriñ Moustapha Mbakke njeeta moo koy def danañu def it waxtaan ci ak cheikh Mouhamadul Fadil kooku it ki koy def moo di sëriñ Hamdi Jatar danañu defit waxtaan woo xam ne ñi ngi ko def ci Cheikh Abdul Ahad ki koy def moo di alxaaji Xaban Guèye danañu def itam waxtaan ci sëriñ Abdul Qadir ki koy def moo di Mouhamadul Mamoun Boussa danañu def itam waxtaan ci dëkkub Touba bi ci boppam ngir leeral nan la yaatoo ñi ko dëkke nu mu toll nan la ñuy dëkke Touba nan la ñuy amee kër Touba ak yan ak yan ñoo am Touba ci yi nga xam ne def nañu ko fi yooyu it sëriñ Mewdu Jaxate mi nga xam ne moo moo amee dëkk bi dana ci def ay waxtaan dana am itam waxtaan woo xam ni alxaaji Muxtaar Sekk mi nga xam ne moom ngeen xam dana ko def muy waxtaan wu am solo ci jëmmi sëriñ Tuubaa ci boppam fas nañ yéene it bu ñu ko fekkeetee nag danañu waxtaan ci mboolem ñi nga xam ne ñooy waa kër Serigne Touba ku demee ni ki ak Cheikh Mouhamadul Bachir ñi nga xam ne jëf na jëfi xalifa ci yoon wi ak ci bokk gi ak ci lislaam ak rakam yi nga xam ne it ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dundam gépp ci bi ñu fi nekkee ci yoon wi ak bokk gi ak lislaam ci la ñu nekkoon di ko dundal bu yeneen jëmmi jamono it danañu tànn ci mag ñi nga xam ne ñoo jëkk a topp Serigne Touba kenn ku ci nekk itam ñu waxtaan ci li nga xam ne moo yelloo ak yow dafay bunt bu ñu sëbaw bi rek ren ñu bëgg leen a betteeg loolu di ñaan màggal gi yàlla delloo si ko jàmm mu fekk nu ci jàmm kon ñu bàyyi leen ak ñi nga xam ne ñoo baaxoo joxe màggal gi ñu àggale nag li nga xam ne moo des ci waxtaan wi والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته داخل برزق الرب الورى متكفل وسالة يتألمه